dañuy dalal tey Abdoulaye Mamadou gise jiite observatoire euh, de la musique et des arts du Sénégal ñu gën koo xamee OMART euh, mu bokk tamit euh, ci commission évaluation ak suivi politique des programmes publics nu lay nuyu di la dalal Abdoulaye Guissé. jërëjëf Elisabeth man tamit maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant parce que yow toujours boo ma woowee rek dama lay wuyu parce que vraiment sa qualité. ak sa professionnalisme moo tax. Mhm. tey ñu waxtaanee euh, li jëm ci euh, musique parce que nag bés bi ñu màggal euh, le vingt et un juin gi ñu bëggoon laa laajte en tant que professionnel nga nekk ci milieu bi tey nan nga jàngatee justement industrie de la musique. waaw industrie de la musique chaque jour bu ñuy wax musique Sénégal bon industrie de la musique mooy musique bi nga xam ne. da nga ciy jël ay nit di leen ci liggéeyloo di leen fay ñu si yore seen kër di si tabax seen kër di si liggéey. Mm-hmm. mais boo xoolee loolu tey Sénégal musique Sénégal si jamono yi ñoom euh, Touré Kunda jamono yi ñoom euh, euh, Baaba Maal Youssou Ndour Ismaïla Lo tey ak Idrissa Diop ñooñu liggéey nañu am nañ ci musique loo xam ne mën nañu wax industrie musicale mais mm-hmm. tey génération bii ñu toll tey fi ñu toll Sénégal nii Euh, euh, politique culturelle yi ñu am dañoo laaj ci ndax gis-gis bi nga xam ne moom la euh, réew mi amoon programme yi ñu amoon pour ñu ñu pratiquer ko ñu exécuter ko. Mm-hmm. dañoo gis ne loolu mujjewuñ ko ko tëral. Mm-hmm. tey boo xoolee ministre de la culture maanaam tey waa Sédhiou rek la nekk lay toppatoo toppatoowul keneen te loolu du politique. te loolu ci culture bi. ci culture bi ah mais demal madame demal ministère de la culture employé yi programme yi d'ailleurs le ministre a un grand festival à Sédhiou donc euh, foofu lay def festival am et dugal fa ay plus de quatre cent millions alors que au dit ñun tey ñun acteurs culturels musiciens yi euh, am nañu luñ dañ leen war a organiser dañ leen war a jox ay mécanismes ay jumtukaay yoo xam ne lépp lu ñu liggéey ci mën a tedd ci mën a teral seen bopp di ci teral seen njaboot seen waajur mais mécanisme yooyu jumtukaay yooyu amul léegi nag ñun loolu tax Omar ñu mus a tax xeex boobu na tey ku mel ni ñu na ba mhm. gis ne ñun li ñuy xeex dëgg la te moom en tant que ministre conseil du président de la république moom droit am la mu waxtaan ak ñun te depuis boobu ñu ngi am cadre maanaam table bu ñuy waxtaanee. Mhm. Omar ak moom pour xool. moom Youssou Ndour moom Youssou Ndour. Mhm. en tant que ministre conseiller. nan la ñuy defee ba ba indi ay ay ay jéego yu kanam ba pare nan la ñu mën a def ba njaboot yi ñëpp mën a dund ci culture mhm. te loolu man dama koy rafetlu ndax loolu laa mës a xeex loolu laa loolu la Omar Ty mës xeex ak ak ak li fi ne ak moom moom ci boppam Omar Ty loolu la mës xeex te mais gis naa ne maanaam am na nit ñoo xam ne dañoo neex a waxal boo leen waxee xam nañ li nga wax dëgg la. Mhm. te nit ki bu li nga wax dëgg la. yow tamit yow mi nga xam ne da doon ñaxtu pour pour am dëgg. Mhm. boobaa da ngay da ngay nangu toog ngeen échanger parce que boo leen li li ciy jur li ciy judd mooy lépp lu ci am njëriñ mooy culture bi musicien ci suuf ba ci kaw ñëpp ci jëriñu ñëpp ci yore seen doom te Omart loolu mooy liggéeyam. ndax loolu dafa firnde ne euh, joxuñu justement ñu ko yellool diriger secteur bi. <laughs> mais effectivement xam nga tey boo xoolee musique bi. bi muy tudd musique ba léegi ñu ngay dégg fii ci ministère de la culture ak yenn institution yi moom ma cité ko mel ne Aziz Dieng ñoo ñoo fi keneen newu fi mais pourquoi loolu depuis des années ñooñu ñoo fi ne tey am na compétence tey boo demee ci musique bi am na ay expertise yoo xam ne tey bu ñu leen associé ci liggéey bi mhm. mais mais mais liggéey bi day dox mais tey un ministre la culture bu ñëwee day defe ne moom ministère la culture pour maanaam pour politique la koy doyee te culture culture kenn du ko politiquer mhm. culture da koy développer day développer askan mhm. mais doo ko jël pour pour pour politiquer ko te donc ministre yu bëri foofu la ci culture parce que dañ koy jël def ko yëfu bopp def ko fonds politique tey comme li mu la ko wax rek Ablaye Diop Sédhiou lay dem financé fa ay millions euh, am fo festival am am fa lépp mais faaliwul artistes yi nekk si musiciens yi léegi nag loolu nag ñun la ñuy ñaawlu parce que il faut que ñu teg jumtukaay yoo xam ne dina permettre fu waay nekk di di dundee aaram di ko jëriñoo. Ah, mu am tamit ci say biir kàddu ñi nga xam ne dégg nañu leen nga cité leen en référence maanaam musique bi tey fa àgg ñoo ko fa yóbbu euh, muy mm-hmm. old school euh, muy Baaba Maal euh, Ismaël mm-hmm. Lô Youssou Ndour Omar Pène Thione Ballago ak ñoom mm-hmm. muy ay jigéen ñoom it ci mbir mi mais ndax loolu dafa am lu muy wundu parce que nag ci ñi nga lim yu noonu yëpp dégguma ci ay ndaw. non li mu wënd mooy ndaw yi fi nekk bëreeguñu tey booy lim ay ñaaru ñett nga fi gis mais. soo xoolee sànq ci lim la quand même. ñu ngi bay seen waar waaye seen madame de weesuwul jam ñaajo bi seen musique bi ñuy def jéggiwul jam ñaajo parce que lu tax ma wax la loolu parce que amuñu jot pour liggéey amuñu jot pour saytu li ñuy liggéey amuñu jot pour jàng li ñuy bindee musique parce que musique bind la maanaam pour nga nekk woykat bu mag pour nga nekk musicien il faut nga nekk taalifkat il faut nga nekk bindkat mais loolu ñi fi nekk tey li leen gën a préoccupé mooy buzz buzz tey moo xew ci TikTok bi Instagram Facebook pour que ay une semaine ñu lay tudd deux semaines ñu lay tudd ñu ne waa ji am na buzz ndaw si am na buzz alors que buzz boobu lu ko uteeg ay ñoom euh, Touré ay ñoom euh, Dame 2 ak ñooñu mais ñooñu musuñu ut loolu ñooñu liggéey la ñuy def jàng bind bind bi ñuy bind ci musique dañ koy bind du ko saytu du ko saytu ay bindkat yu mag la ñu essentiel sur le plan de de de de l'arrangement musical mais dañ ciy discuter pendant des des des des des mois pour que œuvre bi war a mën a génn tey ma jox la exemple un euh, Idrissa Diop à avec qui j'ai eu le le le privilège ma liggéey ak moom ay ay fan ci benn ay weer ci euh, œuvre am ah. mais Idrissa Diop balaa moom benn morceau rek balaa mu koo pare mais mun na jël at ndax da koy def di ko changé di bind paroles yi di ko changé sonorité yi rythme yi di xool ndax kii tëgg Sénégal la wala du tëgg Sénégal wa ban dëkk ko moom mais loolu tey ñii fi nekk xale yi ma gis nii buzz la ñu wut te buzz bi pour lan la pour TikTok am ay Instagram am un million de vues te léegi mooy lan juddu tey màgg tey dee tey. ah dañoo xam fan la mbir mi euh, euh, gën a ëppee avantage rek ndax nouvelle technologie tamit am na lu mu andi ci mbir mi. mais am na mais qualité bi sànq li nga wax dafa am solo. Mm-hmm. parce que da nga ne qualité bi nga wax contenu bi. Mm-hmm. man man je parle plutôt du contenu tey loolu buñ bu leen di yóbbu buñ ci am ay ba pare li ñuy proposer euh, population bi ak mais mais am am qualité am mhm. qualité. Mhm. xam nga tey mun nga mun nañ la jox lu bëri am qualité. Mhm. mais lu bëri te amul qualité amul njëriñ. parce que du yàgg du œuvre buy éternel maanaam mooy li ma la wax œuvre bës la day judd tey màgg tey dee tey. alors que tey boo jëlee Turakunda wala xalam wala nga jël. Euh, euh, Ismaïla Lo wala Baaba Maal wala Youssou Ndour. mais ku ci nekk Youssou Ndour tey nga déglu Salimata Ismaïla nga déglu Tadja mais ce sont des œuvres ism euh, Eh, Idrissa Diop tey eh, Nobel Nobelu isma Idrissa Diop bi nga déglu ko ay at xale yu juddu tey sax dañ koy déglu. Mm-hmm. mais c'est ça madame il faut que ñu wax le dëgg xam le ne ñoom li ñuy liggéey nii li ñuy def xëy na ñoom dañoo gis ne ñu ngi am bës mais seen œuvre li ñuy liggéey ni weesul jam ñaaj ñu wax ci leneen muy politique ndax yow kat am nga tamit euh, wàll ci mbir mi bokkoon nga sax euh, ci euh, yeewi askan wi ba jag <laughs> saay daal di fa génn lu ko waral hmm. voilà donc donc yeewi askan yeewi askan bi dañoo ñëwoon foofu pour que indi indi indi lu bees hmm. maanaam proposé nan la culture bi di mën a nekk ci élection locale yi force de proposition mm-hmm. mais bi ñu ñëwee cotiser comme ñëpp comme nim la ko préciser léegi mm-hmm. euh, yeewi askan bi du benn parti moo lu lu Pastef wala taxaw wala kenn muy financier yeewi yeewi askan bi ñu suñu xaalis ñu ñuy cotiser mm-hmm. euh, joxe dem fay caution fay lépp mais biñ ko defee ak aussi euh, collecte yi ñuy def maanaam joxe ay numéro ne Sénégal yi foo leen nekk ci àdduna bi mun ngeen ci def xaalis pour pour ñu mun a am ay fonds loolu yëpp buñ ko defee ñeenti nit muy Ousmane Sonko xalifa Sall euh, Malick Gakou ak Pur jël xaalis boobu maanaam def lu ñu lubaab di wax détournement de fonds de campagne. loo bëgg a wax foofu euh, li jëm am yëpp euh, ça se divise entre ñeenti parti yooyu. ñeenti parti yooyu ñeent fukki parti yi des yëpp ak ñaar kenn kenn jotul dërëm kenn xamul sa xaalis boobu fu mu dugg d'ailleurs maître Moussa Diop wax wax na ko barki dem ba cité ma cité na ma si loolu parce que ñoom ñëpp ay naqar lool xaalis boobu ba léegi gisuñu ko investiture yi aussi noonu la demee kenn xamul nu mu demee ñoom ñoo ko defal seen bopp léegi loolu nag détournement de fonds de campagne la tey euh, euh, président Sarkozy loolu lañ ko tëjee en en France pigment les problèmes pigment tey Sénégal bu doon dëkku démocratie la bu doon dëkku justice la tey Ousmane Sonko Khalifa Sall Gakou ak waa PUR ñu fanaan seen kër léegi yéen lan ngeen def si mbir mi parce que sànq yaa ngi wax ne citation ngeen interpellative sommation moo tekki dañ leen di wax ne xaalis boobu nañ ko firndeel wan ñu fu mu jaar loolu yëpp pour bañ a d'abord dem ci la buñ ko defee may nañ leen weer tontu wu kon xamuñu xaalis boobu ñun xam nañ fa ñu ko dugal mhm. dugal nañ ko fekk ba mu des si ñeent ñeent fukki parti ak juróom-ñaar mhm. léegi nag euh, ñun dañ leen di porter plainte dañ leen plainte ba pare partenaires plainte au niveau du procureur de la République mais aussi dañ leen di porter plainte au niveau international parce que ñun ñoom gënuñ ñoo xam yoon bi parce que tey boo de changé am ci réew bi boo bëggee changé ndu njaaj ay ak lépp lu am ci réew bi yow sa bopp da nga war a mais yow tey ñooñu leader yooyu bien vrai que ñun ñu nekk en coalition mais ñun ku si nekk xam na ci kii kii xam na kii kii mooy kan te gis nañu ñoom dugguñu pour pour yeewu askan bi waaye pour yeewu askan bi dañu leen joxe te loolu nag moo tax ñoom ñu tikkee parce que ñun aussi am nañu éthique am nañu déontologie te day réew mi réew mi dañuy xam fu mu jëm mais duñu jël ku nekk ay aventurier ay séparatistes yoo xam ne ñoom même réunion sax duñu nangu nga waxu Casamance duñu nangu nga waxu Salif Sadio je je je pour vous donner information bi ñuy réunion bi ñu bi moom bi bi am na réunion bu ñu def si sept militaire sénégalais yi ñu rey mais dañ ne nañ ci waxtaan foofu ci biir bureau bureau coalition bi pour def communiqué mais Ousmane Sonko dafa bañ dafa bañ et je le dis à haute voix te te ñi fa nekk ñëpp xam nañ ko ñoom maître Moussa Diop ñëpp koo ci laaj dala koy wax am na sax d'ailleurs ñu ko commencé wax si rajo yi donc c'est un c'est un séparatiste addoublé d'un menteur manipulateur man je les connais tous donc ñun amuñu lan la lu ñu ragal si ñoom parce que xam nañ leen et puis lépp lu ñuy wax on a des preuves à l'appui. mer ngeen euh, dem ngeen euh, tey terewu leen xanaa ngeen jàngat euh, ni ngeen gisee situation tendue bu dëkk bi bi nga xam ne tey yeewi askan wi moo nekk au premier plan conseil constitutionnel jël ci ay dogal jëm ci ay liste gannaaw DGE daal di nag autoriser une liste divisée ko par deux tey justement ban jàngat nga ciy def. jàngat bi ma ci def mooy. que ce soit yeewi wala bennoo ñoom loi électorale bi da nga koy respecté madame tey dama lay jox firnde Pikine département Pikine bi bokk bi ñu demee élection locale yi hmm. dañoo dem élection locale yi euh, ñu jox ñu date bi ñu war a déposer suñu liste département de Pikine ak commune yi. Hmm. mais ñun yeewee askan bi mënuñu am possibilité sax déposer liste. Hmm. dañoo le lendemain sax dañoo dem ñaan préfet boobu clôture lañ ba pare préfet bàyyi xam nga lu war a loolu parce que ñun suñu biir ñoo amul ay professionnels. ay ñoo xam ne ci élection la ñuy yëngu man sama base mais de temps yi sax woo na Ndiaga Ndiaga Ndiaga Ndiaga Sylla mhm. ko ne ko ah Ndiaga yéen askan bi de am nañu problème boo xam ne mooy mënuñu defar liste mënuñu xam élection bi koy préparé Ndiaga ne ma ah loolu day cabinet laa rek ñu ñu woowee leen pàccat leen donc am nañu ay professionnels ba pare dañoo bëgg ku nekk jël sa nit jiital te loolu dina gis kaar Dakar. ñoom ñuy aspiré jiite réew euh, tey jii ñu am problème mu confectionner ay liste. ils ont ce problème madame mais loolu mooy mais euh, parité boo mënul respecter parité c'est parce que yow ñu ngi daal di ko électoral la loi électorale parité loi au Sénégal. Mm. c'est pas seulement loi électorale loi la Sénégal. Mm-hmm. maanaam fu voté jigéen góor te jigéen. dëgg la. góorlu voté à l'assemblée a ni ñu naan carte d'identité loi la da nga ko war a yore citoyen bi mm-hmm. léegi nan ngay a am liste électorale te te te daa la waxaat beneen loo xam ne peut être exclusivité yow yow laa koy dox waaw mooy lan mooy liste suppléant Yewwi Askan sax bi ñu joxe ñoom mm-hmm. la mesure partie yu composé liste boobu ay fictif la ay nit ay quarante yoo xam ne ces gens ñii dee nañu ñii existé wuñu ñii nekkul tax Yewwi il le faisait pour remplir loolu c' manque de professionnalisme. mais mais, mais loolu ana fichier électoral bi xanaa nag DGE euh, ñàkkul. vigilance ba foofu non tout ça mais DGE euh, xam nga lu ma xam. nga indil ko Ablaye Guissé. indil ko carte d'identité joxe ko ak. non euh, mais bu ñu révisé fichier électoral bi xanaa nag. non fichier bi am na ñoo am na xam ne dinañ fi génne ah. ñi fi nekkatul andi ñu oh. ñi nga xam ne ñoo inscrire et tout. wala mais fichier bi non dama ne fichier électoral bi loolu beneen cas bu ñu ci duggee ma expliqué la fichier bi tey yow mi voté local yi. local yi léegi nit mun na fa dee nit mun na fa décédé nit mun na tukki nit mun na bañ a sax nekk ci Sénégal mais ci prend carte d'identité dem def ko ci liste te moom yëgu ko tinul loolu laa lay expliqué madame loolu laa la wax dama ne la ñooñu sont pas des candidats xam ñoom dañoo déclaré ay candidats la ñu ils l'ont ils ont pris leur patienté de deux par deux verres. moo waral moo euh, gi. moom Mbijog Mbadio bi dañuy dee rek waaye dañuy dem élection ma liste majoritaire parce que liste suppléant bi c'est pas une liste. tu me comprends. liste suppléant parce que ñoom suppléant teguñu ko muy dara. xam nga tey bu doon école football sa remplaçant yëpp ay professionnel la nekk. maanaam bu professionnel bu bu euh, bu partant yi demuñu euh, yi bu duggee def différence mhm. mais mais en politique mooy ñi nga xam ne tekki wuñu dara ñoom la ñu yóbbu suppléant ñoo xam ne sax existé wuñu ñoo xam ne sax boo leen woon boo leen wutal bu feeñee Sénégal yi dañ leen xeeb voilà respecté wuñu Sénégal yi balaa ngaa yeewi Sénégal nga rek respecté leen d'abord Ousmane Sonko Khalifa Sall Malick Gakou ku ne respecté pas waa pur donc ce qu'ils font c'est yeew askan bi mais yeewi waaw ah. man li wax rek su ma doon man Antoine Diome ñooñu duñu fanaan seen kër ndax le mars tey ñu bàyyi la ngay taxawal ci réew mi mais pàcc dem nga rey ñetti nit tey ñooy ñeent ngay taxawal ci réew mi mais kooku amul benn dëkk ci àdduna bi boo xam démocratie ak justice bi bàyyi ñooñu di di di di doxantu ci réew mi. d'accord ñu lay jaajëfal bu baax a baax. Abdoulaye Coulibaly Guissé